àdduna du làmb rek boo waxee Modou loo Balla Gaye ku nekk génn di commentaire ku nekk wax waaw mais bu ñu waxee ci waxu politique xale yi ni ñu war a def ba dëkk bi avancé ah nit ñi dañoo sonn ñu ngi jaay feeraay dégg nga jaaykatu feeraay yaa ngoog déglu leen am na xale yoo xam ne dañoo am jom bëgg nañu liggéey dañoo amul liggéey Barthélémy Dias tey fanu Assane juuf yi tamit dañ lay fàtte waaw ndax yow da nga fàtte woon Assane Diouf tey looloo tax tamit faaw Assane Diouf fi kenn du yëngu te lii nag war na yee ñëpp waaye bëgg nguur bëgg nekk président ba ñëpp ne da ngeen waroon topp ci ginnaaw président Ablaye Wade ci législative yi ngeen bañ ngeen ne doo leen topp ci président Ablaye Wade. parce que yaakaaroon na ngeen yéen waa Khalifa Sall am ngeen doole boobu mais ngeen dem ba ci biir ngeen gis ne dangeen ngeen def erreur bëgg nekk président warul tax nga nekk fii ne da ngay jaay guerrier politicien gangster kenn soxlaw ko. ñu nekkuñu wild wild west maanaam affaire kabo yooyu soxlawuñu sax Assane Diouf ba muy nekk ci digg dooleem dafa am benn wax boo xam ne daf ko daan wax Assane Diouf da daan wax ne bakkenam bi joxe na ko addiya sëriñ Touba maanaam moom ragalul ñu rey ko ragalul ñu tëj ko kaso mu nekk fii di saaga président Macky Sall di saaga Youssou Ndour di saaga. ñëpp dem ba juum daal di wax wax bu ëpp ci sëñ Bass Abdou Khadre ñu ne ko ràpp ci kaso bi bañ ko nee ràpp ci kaso bi ba léegi ñi fi nekkoon yëpp di jaye Assane Diouf di ko ruux di ko encouragé pour muy saaga tey ñooñu ñëpp dañoo fàtte Assane Diouf kenn faalewul Assane Diouf te pourtant Assane Diouf boo demee YouTube am na ay vidéo yoo xam ne am na un million de vues lu kenn musul gis Assane Diouf moo ko commencé fii Sénégal waaw mais tey ñëpp fàtte nañ ko Barthélemy Dias moom ci boppam jugoon ne jugoon mu ne Assane Diouf moom li muy def man Barthélemy Dias dama cee gis sama bopp mu waxoon sax ne dina usal Assane Diouf ñaari avocat loolu la waxoon waaye bañ demee ba ci biir Assane Diouf ñibbisi ñëpp gis nañ ne Barthélemy Dias faalewul Assane Diouf man génnewoon naa fi ay vidéo yu bëri naan maître El Hadj Diouf foo nekk Barthélemy Dias foo nekk parce que dañoo fàtte woon mbiru Assane Diouf tey nag Barthélémy Dias moom lañ ne rap ci kasso bi te gis nga kenn falewul Barthélémy Dias keroog tribunal xeyna amna ay quelques supporters yu demoon fofu pour soutenir ko mais li lim leen bëgg wan moy né Sénégal il faut que nit ñi def attention bëggu nguur warul tax nga génn lu la neex nga wax ko lu la neex ku la neex nga saago ko Barthélémy maire Mermoz yow sa gox daf la soxla pour nga liggéey soxla la pour nga ne yow tamit joxe nga sa sa sa sa bopp joxe nga ko pour ñu tëj la déedéet Assane duf loolu doon wax ñu ko rap ci kasso bi te yow yaa génn naan sama liberté maanaam sox euh, man mën naa bañ a génn dama bëgg nekk Khalifa Sall déedéet boo nekkee politicien da nga war a nekk responsable Barthélemy man yàgg naa fi wax ne Barthélemy yàgg naa bëgg génn vidéo avant ñu koy tëj billaahi wallaahi wa taalaahi avant ñuy tëj Barthélémy euh, Dias bëggoon naa bi génn benn vidéo ma ne Barthélémy war na xool nu muy def ak saaga yi muy saaga ndax yow boo toogee suñuy juge suñuy magistrat ngay wax ne ay caga ndax prostitution mooy caga nga nga wax ay wax yu ñaaw ndax tëj nañu xalifa Sall ma dégg la nga naan dañoo wàcc seen tuba yeeg euh, président bi lii la leen def ak wala kii lii la leen def wax jooju dafa ñaaw parce que dangeen war a xam ne dafa am ay xale yoo xam ne ñoo leen di déglu c'est vrai que Barthélémy Dias am na ay nit yu ko fi songoon bëgg ko fexeel mu défendre boppam defe naa am na ko ci am na ko ci faatu yàlla na ko yàlla yërëm waaye loolu nag warul tax Barthélémy yow nga yaakaar ne tu es intouchable maanaam kenn mënul ci yow dara ba mu tax lu la neex nga wax ko jëm nañ la fi attewaat euh, dindi sa mbubu euh, député mais yàlla def ñu kenn tëju mais léegi tey dugal nga sa bopp ci kàmb boo xam ne mën nga tëdd deux ans alors que élection 2019 yaa ngi ñëw say say fans sa la soxla man je trouve que Bamba Fall sëga moom moo fi nekk na jéem a fexe moom it nan la militant yi dem jëli seen carte d'identité bu fekkee ne mën na wax ak waxtaan ak Macky Sall président Macky Sall ñu jéem a xool nu ñuy def ba jubóog xalifa Sall man defe naa loolu moo gën a am importance tey gis nañu Idrissa Seck di wax naan juboo naag président Ablaye Wade lu tax juboo nag président Ablaye Wade ci ci législative yi te ñu ngi dégg naan ñoom Bamba Fall ñoom ñëpp di wax naan ñëpp daal ñu ngi naan opposition bi il booloo pour pour bañ Macky Sall am 51 pour cent. gis nga lii dafay wan ne ñun sénégalais dañoo war a yeewu politiciens yi nguur rek moo leen tax a jóg ndax yéen bu leen nguur taxu leen jóg ci législative yi da ngeen waroon booloo. man président Macky Sall laay laay militaire de mais nag terewul li dama leen di dama leen di xel loo xam ne da ngeen ko waroon def da ngeen waroon booloo mais booloo loolu xam nga loolu lan lay loolu la ñuy wan daf ñuy wan ne yéen nguur rek ngeen bëgg ku nekk mu ngi jéem a xool nan lay nekkee président.